maanaam barke sëriñ Saliou mbakk tubaab bii bu fekkee bu fekkee li ñuy wax dëgg la moom da koo dal bu ma yàlla dimbaloon ba mu na ko neex ba mu na ko neex sama rapide ngay wut sëñ bi boole ko ab bëri ko duy ko ci tabaxal ko tabax ko ba mu fees danga koy tabax ba mu boobu koŋ nga wut ab ili ko dem ba ci di géej nga sànni ko fa bala mu àgg nga dóor ko bal sëñ bi mu tàkkaale yow Sénégal ñun buñ fi affaire bu ñu dalee fan lañ koy lijjantee yow réew yi am matuwaay yi nga xam ne say ñu ngi seen digg doole am naa nga affaire bi la jël leen xalaam ñun ñi nga xam ne si bi yàlla mooy loolu ngay ñëw di ñu indil xam ne kenn xam fu man français yi ñu toppee laa bëgg a xam français yi fu ñu toppee sénégalais yi laa bëgg a xam fu ñu toppee sénégalais yi la jël ñu ba ci kanam yàlla demam yow koo xam ne tey benn bu ñu amee suyeer bu baax bu mën a ñëw football équipe nationale nga fexe ba mu national de sam réew réew yëpp ami coronavirus ku nekk toog suñu réew nga ne xoj xojaara di indi am na ab feebar suñu diggante France yi nag leerul. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa leen siyaar wér. coronavirus bi li tax mu gën maa soof mooy réew mi mu dugg réew mi gën a bëri wax ci àdduna bi fi la dugg réew mu soof ñu ëppal ñu ëppal fi la dugg muy senegal wax dëgg yàlla bu ma soñoon du fi dugg ndax ñi fi nekk soof nañ wax ci bari na. tubaab yi am nañu. ay waay ñun torox nan di ñun torox nan ñun torox nan ñun torox nan waay ay waay jile France sonal nanu France lu jël nanu France lakkal nanu waay France sunuy maam nga jàpp jaay France sunu koom-koomu réew nga jël toog France ñëw di di di di sunuy wànq di yóbbu France amoo lenn loonu dese lu dul indil nu ab coronavirus xaw ma coronavirus hey buñ ko yaakaari ci état bi de ñun ñëppay dee benn par benn nii nii nii nii ndax cet amut ci réew mi xaaxta ndiku tufli ci mbedd jëlu musuwaar ñandu sànni ci mbedd amut poubelle yu ñuy tëj amut sax poubelle dëkk bi lëfa ngoog bërki démb lañ fi boloki réew mi yépp ne dañuy def simulation attaque terroriste te àdduna bi yëpp di waajal seen bopp ci coronavirus gi ngeen ne déedéet dañ ko fan a tegg na tege ne non réew mi dañ fee ñaan yu baax ñi fi ñaan yu baax ñaan yi nag am na yoo xam ne noonu programme ñu ko parce que virus bi day door dugg si laa ilaha illallah fun jëm ay waay ji la ñun fun jëm ñun waay waay waay waay waay danan waay ay France lakkal nga nu France yàlla na nu yàlla teg yow man sama yu ñàkk ñëw fay leen ñu war ñoo fay rey ñu ñu dee loolu doyutoon c'est doon ko nekk sénégalais war a football ñu daan nationalité seen réew léegi nag langar langaree nag ñoom suñu feebar jaaxal na adduna bi ñu ne ñëw dañu koy xëppal Sénégal loolu dafa am tey dafa am ëllëg président Macky Sall si jóg mënta jóg ma jóg waaye mañ jàmm yéen bu leen feebar bi songee yéen da ngeen di ndax yéen fu leen fekk yéen a ngi day rek ngont ak nangam sangam dugg na fii génn na fii te foofu feebar am a ah, dugg kon nag bu ngeen feebar bu duggee Tuubaa rek bu boobaa yéen Baay Faal leen war nekk leen leen war lépp nekk leen ci de kon ne sëñ bi moom bu mu fantoon ni ñu waayew man nañ nañ bañ a ku forcé ñëw bu ñëwee nga am nga am fulee forcé delloo ko xam nga lii ma ne Macky Sall bi mënul président daal lii nañ ñu dimbali ku am sa mbokk wala nangam am ku am fulee jógee ci réew mu am coronavirus bëgg dugg Sénégal bu ñëwee ne am fulee bu duggee bu ne wàcc aéroport bi duñ ko tasee ba xam ne da ko feebar mu am fulee delloo ko dugal ko jëm njëgëjaay wala car rapide ne ko foo xam teeral bu bu waay bu ñu fondoo na jël ay matuwaayam ci réew mii te bàyyi yambaram gii de xam réew bi. ministre de la santé rek ministre de l'urbanisme ak ministre de may may nit ndox ñu naan jëm benn ministre bu ci mën a waxu duñ ci wax benn farat loolu ay le cas est détecté da daal sangam sangam nangam sangam loolu day day day waxi dara dañu dimbali moom. waa ji moom barki sëñ Bamba Mbàkke danoo ko fa war a taxaw taw filmé ko télé yëpp du ko seetaan France jàkkaaroo ñun ñu taal ko donc. ba nga xam ne France léegi ñime nañ leen dana war a ñime France mais duñ ragal ba bis penc loolu daa mën a nekk nan taxawal waa ji ñëpp taxaw di ko seetaan ñu taal ko mu jeex. waaye yow doonu dimbale Touba ngeen dëkk nangam sax du seen armée yaa ngi nii bërki dem ngeen ko tijji bërki demu la fees du ngeen ñu dimbale nit ñi di dee nu mu leen neexee nga naan nangam sangam doo ñu may jàmm ak Touba lañ dëkk du ngeen dëkk tal mu karam ba xam. may wax ni wóor na Serigne Bamba Mbacke mën naa jee laa wallaahi la sëñ bi ab jigéen laa topp Baay Faal yow xamee woo maag potub douze yow de wut na Sëriñ Bamba xamee woo maag mbuusi naa ci mbedd yi laa xamee woo maag batterie yu jeex Baay Faal yow gën gën a mu ñàkk fayda wala gën gën a mu ñàkk fulla nga xool boo xoolal nag muuru gan jigéen nga toppee sëñ bi ay waay yow may ma jàmm nga naan man ñun Baay Faal nangam yow sëñ bi intérêt nga ko toppee may ñu jàmm sëñ bi moom jànq bu baax boo gis ci diina doo nga tax nga topp ko bul nekk fii naan da ngay a jëlal par coronavirus bi doo dégg doo gis dara du la xeeñ loo for lekk coronavirus bi du affaire nobante du dara yow nawaate ba ngeen jeexal fu ngeen toll yéen a ngi daayira ngont tànn béer xumbal ay ndaje ay naan café te yéen ñi ngeen bën ngeen a bëgg ay naan café ak naan ruuy moo leen gën a sonal ay mbooloo lay bañ. waaw na sa xol sedd ñun sunum réew coronavirus ñun tubaay sunum réew ñun dëkkuñu Sénégal jën bi Touba ci bopp mooy sunum réew ñun sunum réew bopp la ñu yor Macky Sall buy ñàkk fayra liñ xàññee xàññee ba ba coronavirus dugg ci réewam naka ko na ko accepté Baye man sonn ma ci mbir mi de man maa ngi nii Touba sëñ bi jàkkaaroog jumaa ji dégg noot gi saa xol di sedd foofu coronavirus du fi ñëw nan ñu nan am fulee tëj suñu frontière rek teg wut ngeen di Baye Fall suñ ñu taxaw ci frontière yi kuy ñëw ñu visité la xool la baax yow am murit nga baab murit man bàyyi wàll sëñ bi man amu leen lu may wax ak yow de yow de barki sëriñ Saliou Mbacke leen lu may wax a yow de man ngay sëñ bi ab xeex laa la dig yow fu ma la gis sëriñ wóor na suñu jaar dana xeex te danga bindu nag maa laal de nag maa sa miir ba wóor na sëriñ Saliou damay jamaate damay re damay jamaate de damay jamaate paaka foo ma fekk maa ngi paaka damay jamaate te man te man te man déclaré naa la guerre ctet billahi ba ma juddoo ba na nga ni laa ma juddoo saa ndaay saa baay ba nee maa ngi soog a dégg lu ma jigéen nga toppee sëñ bi ay jigéen ña aywa Baay Faal tuuse nga ma tey Baay Faal tey yëng nga ma ba ci kaw taagale nga ma de waaw na du ma la wax dara man. yee yow Modou Gal nga xam naa la bamba ji ba ji bamba bi nga toppee sëñ bi de bu xëyoon xëy doon leneen nga bàyyi bamba ji man xam naa la bu baax intérêt nga toppee sëñ bi te intérêt bi ab jànq la nga bëgg a nekk fi naan da ngay taxaw di dafa séenee défendre coronavirus di fenal coronavirus yaa ngi fenal coronavirus de lu leer nañ la wax gis nga dëggee seen xale yi ne si mbedd yi di prix bam di bul boo yi nga xam ne amuñu xamuñu dara di bul ak tànn biir rek tànn ceeb ak li doog li seen bii tere da ngeen def ñoom lay njëkk a rendi ñu dee du leen reyantu sax da leen di